man loolu mooy li may wax foofu laa ci yem la ca des ñoo créé seen dossier nañ ko gérer ah. parce que nag dossier bi am ñi ci nekk ñëpp ci complot ba ci général Moussa Fall ah ci complot bi laajal laajal enquête interne bi bi am gendarmerie ah, ñu egg ci procès moom lu mu ci def général Moussa général Moussa ci boppam mm. moo jiite complot bi wala loxo mi ngi ci biir xam nga man li may wax dama koo ragalul su dee Macky Sall laa ragalul dudd ay nit keneen ak keneen moo tax ñu gaawantu jëlee fa tin promouvoir ko moom ba pare dem ut ay ngàndaay ne ko su affaire yëngatoo xeexal waaye ñoom mënuñu dara contre le peuple man gis nga dossier bi dama la ci raconté benn anecdote bi coow amee dafa am ku ñëw gis ma ne ma way léegi sa combat dafa jël dimension internationale te yow gannaaw nga manqué il faut nga am réew moo moo adossé wu te nag jàpp naa ni riche yu doole gi mu am te gars yi moom la ñu ragal et cetera ma ne ko sëñ bi ma ne ko du ma adossé wu ci benn réew man xaw ma benn président de la république xaw ma benn multinational gis nga gannaaw yàlla mi ma gëm peuple Sénégal bi laa dénk sama bopp su peuple bi nee waaw waaw la su nee déet déet la du dem ci kenn te peuple boobu moo ne woon déet te peuple boobu tey la gën a mën a taxaw ni déet li ci des nag dossier bi ma delloo wax ko gisuma ci àdduna ku ci mën a condamné Ousmane Sonko lu toll ni tarfatayen ñaari moo mën a am non-lieu classement sans suite te buñ ci def nag fa la dossier boobu di commencé ndax ñi ci bokk ñëpp dinaa leen topp ñoom ñëpp ils pourriront en prison ne serait-ce qu'à la mémoire des quatorze personnes yi nga xam ne seen complot bu ñàkk fayda bi rey na et ne serait-ce que pour le combat bi nit ñi mëne du rek jigéen ñi de ñun ñëpp ko mëne contre le viol ñu bëgg ko banaliser utiliser ko comme arme politique viol fekk nit mu ne bëgguma nga ne tey forcé di nga def Non nit bu normal mun na ko def ñu bëgg ko jël banaliser ko di ko politiquer bàyyi nit dee

yow jël nga position ba pare sur un dossier mënatoo am objectivité waaye lan moo waral dossier bi ñu téye ko ba léegi ba pare yebal ay nit ci télé ñuy wax suuf suba ngoon moo tax ma ne la depuis le début j'ai dit dossier bi du dossier judiciaire dossier politique la